pour cent maanaam xol bu sedd la ñu ci amee lépp loo xam ne Bart def na ko ak Guy Marius Sagna ak ñeneen ak ñeneen ca assemblée nationale ñun kontaan nañu ci ñun waa coalition Yewwi Askan Wi te nag Macky ci boppam moo war a xam ne la woon woon ni na maanaam Macky Sall mi nga xam ne moo doon jaay doole assemblée nationale am fa majorité loolee jeex na te nag Macky Sall jamono ji bu ngeen gisee maanaam mu tabb ab ministre bu ñu dénk wàllum yoon bu bees nee ma Ismaïla Madior Fall dafa bëgg nag li xam ne mooy assemblée nationale a ordonnance maanaam mbooleem li nga xam ne assemblée nationale am na sañ-sañ def ko Macky Sall dafa bëgg moom en tant que président di ko def bëgg a suspendre assemblée nationale waaye nag loolee Macky Sall na ko leer ne maanaam moom munuñu ko nangu yéen a kaay gi fo Ousmane Sonko nee na Macky Sall ci boppam maanaam moom day doog di yeewu te ñun yeewu nañ bu baax a baax bu ñu demee ba tey jii mu naan gouvernement de combat a d'attaque loolee mooy firndeel Macky Sall da doon nelaw te nag bu dee am na a andi ñoo andi ak salfa ñoo ci réew mi maanaam njëkk mooy général Moussa Fall nee ma mooy ki ñu dénk gendarmerie waaye tamit nee ma commissaire yàgg nee ma ki ñu waaye tamit ñenn ci ñu dénk wàllum yoon ci ak nag ñenn ci taskatu xabaar yi rawatina nag ñi nga xam ne ñooy patron de presse yi Ousmane Sonko nee na ñi nga xam ne ñooy ay milliards yi milliards yi milliards la ñuy waaye nag ñi nga xam ne ñooy reporters ko gis yéen a kaay gi di jëm ci mbiri Barthélémy Dias ñu Barthélémy Dias mii du ñu nangu tey du ñu nangu maanaam a fuqarti mandat député ma loolee maanaam askanu Sénégal ci ko war a lànk ndax Barthélémy Dias du assassin ñoo ko votel te nag ñoo a jàmmarloo ak Macky Sall ndax ñoo votel Barthélémy Dias ñoom Ousmane Sonko nee na ñu nag Macky Sall ci boppam jamono ji dafa war a xam boppam xam ne dafa tëlee mën la li nga xam ne moom la askanu Sénégal doon xaar ci Macky Sall furaas dal li xëdeen yi nga xam ne moom la askan wi dund mën du saafarawu de dafay gën a yokko a nag Macky Sall gouvernement bu yees bii amul kenn koo xam ne war ngaa nekk ci réew mi mën a gis nga di si jéem a am yaakaara ah. ndax Macky Sall moo amul vision Macky Sall amul gis-gisa yéene kaay gii di 24 heures ah. Ousmane Sonko nee na Amadou Ba mi bu ngeen gisee Macky Sall jiital ko def ko premier ministre ah. du caagi ne dafa neex Macky waaye yaa fii la ndax nag leeroon na ko ne Amadou Ba mi bu ko bàyyee assemblée nationale loolee mën na koo jural musiba yéene ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi juróomi fan ci weeru octobre danañu taxawal seen association boo xam ne mooy maire yi bokk ci Yewwi Askan Wi l'observateur nee na dellu siwaat leen ci gouvernement bu yees bi ak Amadou Ba ak li ci Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko nee na Amadou Ba mii ñu jiital def ko premier ministre ma ne la juróom ñaari at dénk nañ ko finance te nag dénk gi ñu ko dénkoon finance sunu économie réew mi def daf cee nërmeelu waaye entreprise yi ma ne la nërmeelu la ñu def entreprise yi fayita exonération fiscale bi si mel ni tulleeg màlle ma ne la séddoo suuf si mel ni tulleeg màlle ma ne la xaalis bi ñuy sàcc mel ni tulleeg malle lii lépp jamono ji nga xam ne Amadou Ba nekkoon na def finance la kaddu yi Ousmane Sonko la nee na na koo xam ne yow juróom-ñaari ata mbir mi demul cee nga dikkul mbay laara ci benn at ak genn walla nan nga ci mën a saafara jafe-jafe askan wi waaye nag askan wi ñoom seen bopp ñoo war a am fulaak fayda bañ a gëm lii nga xam ne moom la Macky Sall di wax ndax du dëgg munta nekk te ko nettali yéen kaay gi de alerte ñi nga xam ne nag ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee na ñu bu leen Macky ñoom tam ñu respecté Macky Sall waaye bu leen Macky Sall respecté wul du ñu leen respecté yéen kaay gi ñu xëy fekk a fa Déthié Fall nee na Macky Sall 2012 ba 2022 lu ko neex moom la nekkee woon ci réew mi waaye nag loolee jeex na c'est fini julli tubaab Macky Sall ci boppam ba mu lajjee sax dafa yàgg yéen kaay gi du l'Observateur Ousmane Sonko nee na saagakat yi ca Macky Sall la ñu fare ba tey ci biir journal bi moom Ousmane Sonko nee na ñi nga xam ne nag ñooy journalistes yi ñoom dañuy attaqué waate di sosal nit ñi ñenn si ñoom di fenal ñenn ñi di bind loo xam ne dara du ci dëgg waaye boo leen waxee dara rek maanaam dootuñu ko déggatee ndax nag am na loo xam ne mënatuñu koo nangoo li Barthélemy Dias wax benn organe de presse ñun ànd nañu ci te nag dañu ko ciy félicité ma ngi ci l'observateur ah yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na coalition Benno Bokk Yaakaar démb ñoom janoon nañu ak taskatu xabaar yi waaye nag nee nañu Aminata Touré na leen delloo seen mandat député bu dee nag Aminata Touré démissionné na ci parti bii di APR Bokk Yaakaar ah ñoom maître Omar Youm fuqarte li nga xam ne mooy mandat député bi yéene kaay gii di Walf Fadjri nee na Aminata Touré nag ma ngi ñaaj wuti 2024 waaye du nekk yoon wu yomb ci mooma ndax lu jëm ci wàllum finance Pathé Mbodj journaliste nee na Aminata Touré nag lu jëm ci wàllum xaalis du si am ay jafe-jafe ndax fi mu jaar moo tax Babacar Jonn journaliste nee na Aminata Touré nag dina bëri ay jigéen ñoo xam ne ñu ko jàppale yéene kaay gii di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall démb janoo naa consommateur yi commerçant yi secteur privé bi ngir nag ñu waxtaane njëgu yokk yi Macky Sall nee na Sénégal yi soppar ñi leen ni ngeen di dundee yéen kaay gi de la rafet quotidien nee na bu ñu waxantee dëgg Macky Sall ci boppam moo amatul solution ngir lijjanti jafe-jafe Sénégal yi l'observateur ak libération nee na Californie mi ñu tuumaa lu jëm ci wàllum viola démb la ñu leen waroon a dégluwaat moo xale bu jigéen bi waaye dañu ko mujj dàq tey jii lañ leen di dégluwaat source a nee na lu jëm nag ci wàllum xale bu jigéen bi ak gynécologue bi nga xam ne xool na ko ba xam dañu ko doon jéem a wala nag Californie dafa jël loxoom dugal ko ci kanamam waam wala déeta maana la résultat yi tey jii la koy xaarandi Californie nag